jërëjëf mbokki wasaare làmb ñoo ngi leen di nuyu di leen waaye kontaan nañ ci yeen ci jox bopp bi ngeen ñu jox bopp safoo bi ngeen ñu safoo kontaan nañ ci yéen bu baax a baax tey nag ñoo ngi fii bi wasaare dalal fi ay xale yoo xam te ay ndaanaan lañ ci làmb ndaanaan lañ fañ dëkk te fañ dëkk bàyyi na leen xel bu baax a baax muy Parcelles sama sama droite maa ngi fi am ki nga xamante ni mooy Giro Seras sama gauche maa ngi fi am ki nga xamante ni mooy Calcio ñii bokk nañ ci làmb bokk yi kenn du leen présenté fenn tey ñoom laa dalal fii bëgg waxtaan ak ñoom ci làmb bëgg waxtaan ak ñoom seen carrière bëgg waxtaan ak ñoom ni làmb di doxee bëgg waxtaan ak ñoom li nga xamante ni moo nekk ci seen kanam damay ni bàyyi ñu nuyoo ñu waxtaan wi Giro nuyu naa la. waaw Ouzin maa lay fay di wax onze billah bisimilah inna waal yàlla di wax jërëjëf Serigne Touba waaw di wax jërëjëf sëriñ Touba jaraw la ko maam Cheikh Ibrahima Fall xam nga di sant waa daal xëfóoru waa kër maam Saliou Fall ñëpp maa leen sant bu baax di leen gërëm waaw di waaw du leen siyaar gaa yëpp waaw di sant waa parcelle bu baax a baax waaw ñëpp ñu may jàppal di ma ñaanal maa leen sant bu baax di sant suñu waa kër suñu waa koñ ñëpp bàyyi ma kenn di nuyu Kalso sama grand. Euh, maa ngi fi ak Kalso borom Afghanistan ah borom Turquie borom Suède borom bi Kalso nuyu naa la. am na dëkk boo fàtte laa fàtte. Niger. nuyu naa la. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa taala wa sar bone sar sar bone yoo bone e dam ba yoo jam yeeso bisimilahi sar bone sar sar bone e dam ba yoo jam yeeso laatin laatin faatin jaaban muskoora kumba bete sire bete kumba bete sire bete gannaaw yàlla bi nga xam ne maa ngi. julli ci maa ngi sant yàlla bu baax di julli ci Seydina mo di gërëm sama ñaari waajur di nuyu yow mi nga xam ne yaa fi nekk Ousin. Mhm. yaa sa ñaari cameraman nuyu sama rakk Giro Serage. Mhm. moom sama rakk la sama lépp la quoi parce que ñoo bokk lépp maag moom. Mhm. kontaan trop nag ci invité bi ñu invité. ñu temps sa bisab si dafa rëy de bisab si nga ñu xool ñun xam nañ ne taxaw nga bàyyi li ngay def. non biceps yii nii yii nii doom yaay wax naa la li may entraîné nii nekkul affaire làmb tax may entraîné pour entraînement pour ay affaire MMA moo tax may entraîné. MMA moo tax ngay entraîné kese mais nekkul ay affaire làmb. yow man diisagu ma de bis ma nekkee cent cinquante wala cent cinquante cinq kilos ci laay diis. cent bi diisagu ma bàyyi kanam ba xaalis am. bu waa nga xam ne fi mu toll nii amaguloo xaalis. amaguma xaalis damay mos nii rek. Hmm. yow dafa mel ni gëj ngaa bëree de fi mu toll nii. waaw sama combat ak Boy Dakar ba léegi kay bëreew ma. sa combat Boy Dakar su ma juumulee. deux mille dix neuf xam deux mille vingt bi daal. deux mille dix neuf wala deux mille vingt. Hmm. ñaata oh, victoire. Hmm, ma am naa huit victoire ak deux trois défaites. waaw ak benn sans verdict. sans verdict hmm. ok loolu de palmarès bu baax la mais lan mooy waral gëj a bi parce que ñu gis nga nekk xale. Euh, dajeeg ndaanaan ndaanaan yu bari mën naa ne bëri nga ak ñoom ba ki nga mujjee lim muy Boy dakaar gis nañ ko euh, bërki démb bëri na moo ki nga xamante ni mooy gàkku de ñu mag si niil mais boobaak léegi la may waral sa combat yéex waaw loolu noonu boo gisee quoi du si man te nekkul ni tamit ñàkk jàppale wala dara quoi mm-hmm. am naa ñu ma jàppale su may bëree comme li gars yi di def lépp dama koy def wala ma raw leen si mm-hmm. xam nga mais du si man quoi amaana samay combat day taxaw mais au fur et à mesure dañuy dem tuuti samay adversaire lay nekk. waaw te am na yoo xam te ne sax ump la. Mhm. waaw parce que sama combat ak Abu Ndiassé taxaw na fi ñu dem ba si biir combat bi yàqu. ñu dawalaat sama combat ak euh, Nokia taxaw xam nga bañ jàpp dat jàpp lépp ñu demaat ba si biir mu yàqu. mais mais mais dama gis chaque jour combat yi day taxaw dëmb ci biir yàqu sa diggante yow ak ñoom lan la dañ la ñemewul wala boog lan mooy tax ñu jël avance dem ba ci biir di ko delloo parce que sa diggante ak Abou Ndiass noonu la demee sa diggante ki nga xamante ni mooy Nokia tamit noonu la demee moom moo fi woon teew mais jaam ak pexeem yàlla ak sa diggante ak ñoom lan la. noo comme li nga wax tey jii nii affaire bi yenn saa day toll foo xam te ne sax du jaam ak pexeem quoi jaam mooy xool li ko neex mu def ko Nokia si boppam man xam naa ne pour mu bëreeg man du yomb. lu tax parce que xam nga rek nit boo koy sóoraale doo bëreeg moom te man awma lu may. waaw man su ma duggee si benn affaire du demee demi mesure aw ma xel ñaar. suuraale maanaam ragal wala. non yow xam nga nu mu demee sax parce que maa moom tey jii ñoo waroon toog fii nii mu joxe kàddoom joxe léppam comme si combat mu joxe kàddoom te nit kàddoom la mu ko waa. te nit boo joxee sa kàddu xam nga war a fexe ba loolu noonu kenn bañ la si ŋaañ. jii ni xam nga rek waroon na toog fii ñu leeral lu bëri mais boo gisee ñëwul tamit loolu moom la concerné mais suñ combat moom xam naa du gaaw a taxaw quoi. dina taxaw nag nii ci ay wax nii mais bu dara desulee lu dul bëre moo du bëreeg man. léegi li ma bëgg a xam mooy euh, jour yéen ci combat Ada Fass ak Tapha Mbeur ngeen waroon bëre. Mhm. léegi combat boobu dafa yàqu wala dañ leen xoolal benn adversaire wala parce que moom moo ne du bëre spécial du ko bëreel Tapha Mbeur ak Ada Fass dañ leen xoolal benn adversaire wala yéen ñaar la ñuy maintien ba léegi. non instant nii Fallou Diagne moo ngi may xoolal beneen adversaire xam nga làmb ji xam fa la toll ku nekk ki ngay combat bi nga am di ko bëre sa grand combat la ku nekk làmb bi ngay bëre sa grand combat muy premier combat ba ñëpp parce que ku si nekk rek lépp loo am da nga ko siy def. du question de Ada Fass moo ñu njëkk a wala dara. Mhm. waaw tey jii ñun suñ bëre woon grand tamit Ada Fass lii tamit. yëpp mhm. mais tey jii moom bu demee ba joxe accordam nangu ne dañuy bëre avant grand combat. ba ñu defar ay affiche dugal kon warul demaat ba si biir ne lay bëre. xam nga gars yi dañu ut fu ñu jaar pour am lu ñu nëbb. maanaam dañuy wër lu nooy wala lu wër fu mu gën a gajafee ñu ñu doxalee ko. am na ñoo xam ne bu ñu duggee si làmb dañuy leerlu dañuy leerlu. ok dañuy dem xool ba xam baax na wala baaxul. waaw loolu amaana moom su toogee dina xam li ma koy wax waaw moom day dox si làmb yi du benn yoon du ñaar yoon mais man tamit xam nga booy bëreeg man doo toog parce que man tooguma <laughs> booy booy man doo toog parce que man tooguma dëgg tegal foofu sa tànk ma ñëw parce que euh, même bu dul moom dafa mel ni am na adversaire yoo xam te ñoo am na ñoo xamante ni ñoo nekk sa xel tegal foofu sa loxo ma ñëw ci Calcio Calcio euh, sa diggante yow ak parisien parce que yow tamit parisien moo waroon ñëw toog fii ngeen jàmmaarloo mais parisien moom tamit suba ba léegi kenn mënu koo gis xëy na moom tamit dafa am empêchement waaye dañ ko koy nangul dañ ko koy nangul sa diggante yow ak moom. lan moo taxoon nga dugg ci parisien parce que yow jóge nga ci parisien te yaa ngi jëlaat kenn ki nga xamante ni nii mooy bébé Elton defe naa ne yow moom bugguloo benn rukk bu bu sedd yow nay tàng rek tey neex la moo la duggaloon ci parisien ak bi ngay jël parisien est-ce que xamoon nga parisien. Ouzin man dama la waxoon benn affaire man la man mënuma fekk sama ay famille ñii di sang néew ñii di gëstu néew ba pare man may ragal wala man may seetlu sedd nee naa la man bu tey ji ba xam ne bàyyi naa ay affaire làmb ni sax. damay dem di continuer di sang néew ba ci jamono ji ñu toll nii nii sax mbokk na ci métier moo xam ne maa ngi ko def parce que comme làmb ji ñu ngi taxaw sama saak bële ngay gis ne 7 mètres per cale maa ngi ko ci def. 7 mètres per cale waaw yoo xam si pour yu may. xoolal xam si nii 7 mètres per cale lañ fële ci saak bi yoo xam si pour tey ji yow mii tey ji boo wàccoon ñaanu ma ko mais boo wàccoon xam nga fii lu bala man. bu kàgg wàccoon. mën ngaa wàcc keneen mën naa wàcc. xam man mu wàccoon sama bopp moom mënoo maa sang. Hmm. mais yow tey boo wàccoon balaa nga egg parcelle mën naa la jéem a defar xam si lu may ragal parce que xamuma ragal sax fu ñu nekk ci nit. Hmm. man gars yi xam nga lu ma leen jàppee saafara mbooloo laa leen jàppee. ku ñëw diwoo maa ko xam loolu kese laa leen ku ñëw diwoo dem sa yoon. te man dama la mos a wax boobu yàgg na man la Ouzin man nag wu ràmm laa. nag yi lay daw waaye daw nag yi ñoo may daw mais man daw ma benn nag man damaa wopp ba ni may waxee yow damaa sax wopp daw ma kenn man gars yi may daw man daw ma koo xam su ko may daw man ku ñëw baax na parisien ba ma ko jël xam parisien yoo xam ne kenn xamu ko parisien combat bi bëri na. mais daan na fi wuli de avant muy bëri. waaw avant waaw mais wuli rek la daan boobu ma koy am na yeneen combat mais comme nga xam ne gannaaw yàlla yoon tey ma bëriwaatee man nëru ma woon a bëriwaat tey bu ma demee ba bëriwaat loolu fu ma mën a dem dama koy pël moo tax ma bëriwaat. Mhm. moom pël moo tax man ma bëriwaat mais bu doon moom dama duggaat sax ci làmb moom ñoo proposé parisien fekk boobu ñoom góor a mbaxal mooy Ousseynou ñoom bëggoon nañ ko. Mhm. léegi kee taxawal ko bi ñu ko taxawalee nag mën a ah garaaw comme combat la bàyyi ma jël ko. Mhm. ma jël ko nag di koy waajal comme ni ñuy waajale combat yi. wàccal micro bi tuuti. ma jël ko di koy waajal comme ni ñuy waajale combat yi def ci li ma war di entraîner def li ma war. Mhm. mais xam nga doomu aadama jàmm pexe yàlla dogalam. dëgg la mais waajal combat bi di koy waajal ba ni ma demee Esat di def jàkkaarloo bi ñuy def jàkkaarloo ci laa seen histoire mag moom sama loxo bi damm ci loolu yàqal ma sama làmb ji empêchement. Mhm. ba keroog bi may dem di bëri ji sax bilaay maa ngi dem di bëri. mais mais xam naa ne mënu maa bëre. mais lan moo taxoon nga poñe ko parce que damaa jékki-jékki gis nga poñe ko mu la bàyyi ma. waaw ah, booy bi du la ma poñe ko moom dafa ma sotti galaaj ba pare yow boo gisee yoxosu ma booy bi yoxosu sax yow keroog dafa mel ne yow dëggoo man parcelle parce que yow booy bi laa gis yow keroog xam nga tey ji man parcelle laa teg nga dëgg parcelle nga ne sama rakk xanaa bu du dara sax nga xawoon a def nii mais yow daal da may booy bi. yow yaa tax booy bi sa dóor ma arrêté. <laughs> maa tax mu dóor la waaw rek man boo nee bu dóor ci laa gis nga téye sama loxo bi rek booy bi yoxosu ma léegi booy bi ma yoxosoon nag man ci laa arrière ba ma arrière xam nga ñun comme Afghanistan lañ ne dañoo xam a jàng xeex. Mhm. ma def kabatas yi. ma ko dóoree ndekete bi xam nga timis du man parfois ma gis. loolu <laughs> timis sama bët du neex. nee na booy bi ba muy dóor bopp bi la ma jox ba ma ne koy téel sama loxo gis nga ko. waaw ci laa ne sama loxo bi dafa damm. Mhm. ci laa la sama loxo bi dafa damm léegi lii nag ma continuer ak moom moom laa bëri waale moom làmb nag métti na métti goo xam si li ci ne lépp sax mënu ma la ko wax billaay mais nag ma demee ba bëri combat bi yàlla ak pël moo tax mu bëri. ak samay supporters mais bi ñu ñëwee ci làmb ji te ñoo gis lu bari ñu ci bari dafa am lu leen jaaxal. Mm. ndax euh, signataires yi neexoon na. Mm. wax ji bari woon na say gàllaaj bari na mais nga ñëw ba ci signature bi. Mm. nga ñëw ba ci làmb ji. sawaa jàpp la di la dóor ngay dem di dellu si di dem di dellu si kenn comprendreul ñëpp ne Calcio garde bi da ko wàcc seen kër. waaw ah, loolu Ousin xam nga doomu aadama mënoo damm li gis na nit mënoo damm di bëre man la ma def dama ko def te yàlla tax moo tax ma def ko nga xam ne lii nii sa waay kum dal da nga fa fekk nga nekk jàmbaar. bëriwaale loxo bu damm loolu histoire Sénégal bu fekkee am na ñu ko mos def ñu ko mos def bëriwul. te bu ma demee ba bëre combat bi jour boobu yàlla ak sama booy ñoom ñii ci lañ bokk ñoom giro ñii ak ñi nga xam ne muy booy waa koñ ak ñeneen ak ñeneen ñoom ñoo tax tey ma dem bay bëree combat boobu mais bi combat bi desee trois jours promoteur bi ñëw na ba ci man ni man ndax mën ngaa bëree ànd ak pël ko waaw mën naa bëree parce que boobu bëgguma yàq tamit journée jàmbur quoi bisub jàmbur mais xam nga ne yow waa ji kër comme doon bëreel ab néew la doon bëreel ba may dóor moom ab néew lay dóor parce que boobu xam nga man dara nekku ci man boo sama loxo baa ngi am problème mais xaw ma woon ni damaa damm quoi pour man rëq rek la woon mais après bi ma demee def rajo bi la lan ma wax ni ma damaa def dafa jafe. nga ñëw nga ñëw keneen du ma bëri. nga ñëw bëri waale blessure bi. daan ko. fan nga ko daanee. bi ma ko daan génn bi ko daan da ko waroon a génne. génne non dinañ ko génne dinañ ko ah. génne mais yow fan ban ban ban moment nga senti ne daan nga ko. booy bi maa ngi ko affaire bi. <clears throat> booy bi maa ngi ko daane ci euh, euh, lamb bi mi ngi commencé ci biir. jeexal ci biti micro combat mi ngi commencé ci biir jeex jeexal ci biti mooy comme Abdou Diouf ak Gris Bordeaux Gris 2 ni mu demee noonu la demee mais man boobu xamu woon ni booy bi. daal koy dàq di ko plaqué. waaw bi ma koy dàq di koy tey jii jël boobu bu amee gannaaw yàlla sama booy bi la parce que ba ñuy départ moom moo ne ma Kalso comme sa loxo bi baaxul te am nga doole booy bi fexeel boo ko jàppee làmb ji jeex moom moo ma jox moom moo ma jox clé bi ba ma ko daanee nag arbitre bi ñëw nit nañ bëriwaat mais xam nga sama course bi moom moo juum foofu na ñëw ni ma yëkkat jéem a yëkkat sama loxo quoi def ko gars yi waa Fass ni daan def bi làmb ji jeex nag man ma dem après ci guddi gi ci la ma pël woo mun ma yaa ci la ma pël woo mun ma yaa daan mais bu subaa bu ñu xëyee daan def recours ba ma defee ba mu defee recours bi nag ci lañ ma jox sama ci lañ ma jox sama kii ci lañ ma jox sama victoire mais xam nga ne boobu fekkoon dama doon bëre ak loxo kese loxo bu dara jotul. xam nga ne fi doon booy bi du ma daan. ñu ne. waaw ne yi waaw ah, li am solo moom moo ndam kese moo am solo ba pare li ma def dafa jafe barke alxuraani karim bëreeg loxo bu damm loolu noonu amul ku koy def fii ci Sénégal booy ba mu ba mu booy bi nga ko joxe victoire bi gëmewu ko sax. mais après ñëw na ba ci man. moom ñëw ba ci man lu làmb ji jeexee moom ci boppam. mu hmm. waxal ma ci géem sa loxo bi sa loxo bi gaañ bi métti na mu waxal na ma ko nii de nii la gis sama loxo mun sa loxo bi gaañ bi métti. combat bi mu desee trois jours moom doon na woo góor a mbaxal dafay laaj ni ko ndax kalsoo loxoom bi tàyyee na góor dinaa ñëw ci loolu parce que am na yoo xamante ni nee na jot na koo metti hmm. ah, gannaaw toogu fi nag te yeggee na ma ko dinaa la ko yeggee hmm. mais Giro euh, hmm. su ma ñëwee su ma ñëwee ci sa carrière ñu ci bari dañ ne Giro Soya su mu toll nii mënoon na ko weesu parce que li nga def ci nombre komba ak adversaire yi nga jot a bëreel ba ba tey gis nañu benn benn benn benn stade bi rek nga toll. waaw lan moo waral loolu. lan moo ko waral lu ci ëpp. waaw xam tamit tamit am na loo xamante ni xam nga nul ne peut s'échapper à son destin. Mhm. ku si nekk yow fi nga war a jaar da nga fay jaar. dëgg la te man yàlla dogal na am naa ñu ma jàppale quoi am naa ñu ma nekkal ñëpp. Mhm. mais comme ni ñuy xaalalee mbëri yoon man kenn xaalalu ma yoon. te man duma ma tànn adversaire xam nga façon adversaire bu nekk jox nañ ma ko mais du yàqoo si man. combat yi su ñoom lay yàq. mais mais boo demee ba tollu fenn fii est-ce que du jot tamit nga jël say proposition bu ne ne diw nga ne ah su ma soñoon am diw ndax tamit mba moo gis bu ne dafa am plan de carrière est-ce que tolluloo moment boobu instant bi non tollu nañ si parce que tamit combat yi ñu may wax yëpp du ma mun a bañ quoi parce que ñi may wax samay adversaire lañ. Mm-hmm. xam fi may waxee. mais bu doon damay bëreek ñoom. kon instant yi feneen laay dem mais parce que dañ may jox ñoom ba jox ma samay adversaire ma war bëreek ñoom ñu dem ba si biir bi yàqu. instant bu ma bëree woon ak abu Ndiass wala ma bëree ak Nokia kon instant yi ni xam nga damay xool leneen waaw. mais fi mu toll nii ñan ñan ñan ñooy say adversaire potentiel boo ma dee limal gannaaw Nokia moom fi mu toll nii euh, parewul pour bëree ak yow soo ma dee limal ñaar ba ñett ñan la war a nekk. waaw ku si mel ni tey jii abu njaase anti. ñoom ñëpp sama anti waaw sama adversaire la. anti de gëj naa bëree moom. te maa moom dañoo war a bëre. xam nga Fallou Ndiaye bëgg na sama combat yu bëree bëri mu ngi may dégg mais du yàqoo si man Ouzin làmb du yàqoo ci man xam nga rek tamit doo forcer tamit nit ne ko par force da ngay bu doon man ak man la rek moom Ouzin wóor na maam Serap Fall man moom awma problème boobu. kon chaque weer damay bëre. fi mu toll nii buñ ne la woon buñ ne la woon euh, combat combat Ada Fass bi gannaaw suba la ak Tapha Mbeur buñ ne la avance baa ngi nii nga dem sëgg bëree ko. Ah, ça dépend rek si ñoom lay dépendre man awma problème mu ay kii mooy bëre grand combat wala kii mooy lii kii mooy lii man fee banque bi nekk côté Iba Mar sax bu ñu fa tëggoon maa ngi Nokia damay bëre man fa laay waxee lan ngay lan moom mi jël sa avance dem ba ci digg bi ne du bëre spécial wala nangam nangam lan ngay wax Nokia. waaw Nokia tey jii nii xam nga rek am na yoo am ne sax bu ma ko waxee dama koy tooñ parce que nee fi. Hmm. waaw mais jàllal na moom bu ñu gisantee maa moom wala mu toog nii wala maa moom ñu gisante li ma koy wax ko dégg bëréew leen ngeen nekk fa di coow ngeen nekk fa di jàppante lan la woon sa diggante boobu waaw parce que boobu dafa joxe accordam xam ba ñu war a jël avance suñu combat bi taxaw ba Fallou Ndiaye woo ma micro yi ñëpp gars yi dégg ko micro mu wax lu ko neex Sénégal ñëpp di ko dégg xam nga man tamit ma boole li ma neex ak li ma naqar yëpp toog parce que xam naa ne tôt ou maa ngi bu dee rek maa ngi moom ci digg géew man li ma metti dinaa ko def dinaa ko fajee si moom. bi ngeen tasantee lan ngeen doon waxante. non waxante affaire mbër rek jaayante pe rek jaayante rek wax na ma lu ko neex nag mais man moom sëñ Fallou aw ma problème boobu mais nag bu yàlla dogalee ba maa moom sunu làmb taxaw wër na maam Seera Fall dinaa ko def lu loolu même bu ñi may àndal sax dañ ma naan noo mbër combat bi lii may leen seen yoon nekku si combat maa ko jëlal sama bopp mais fi toll nii fi mu toll nii gannaaw gannaaw amaguloo adversaire wala gannaaw bëreeguloo wàllum entraînement yi naka lay demee. waaw instant xam nga tamit toog boobu ba léegi bàyyi di ne affaire yooyu noonu su ma xëyee damay dem liggéey su ma wàccee ma dem saal ba waaw ku si mel ni grand Kalidou moom mooy fayal saal ñoom Assane Wade ñëpp dañ ciy jàpp billaay jël seen xaalis di ko def si man ma am combat ma am combat moo si am Kalso du ma bàyyi ma fenn xam nga ku si mel ni Lat Diop tey jii fi ma nekk moom moo fa yóbbu ba pare teg ma ci loxo yoo xamante ne ñu baax ma fekk fay ñu tonton Souley ñoom ñëpp ñum séemu bàyyuma kenn alsaan ñoom ñëpp maam ñoom ñëpp maam dama ñëw mel ni mel ni man dañ maa xam ay mm-hmm. nga dama ñëw quoi ñu comprendre ma si li ma nekk parce que mbër laa ma ñëw ñu lonage ñu def ma fa comme manutentionnaire mais tey jii nii am na benn taxawaay boo xamante ni su ma fa mm-hmm. demee ba di ko taxawee nii c'est grâce à tonton Souley Souley Diallo xam nga ñum Souley Diouf ñoom ñëpp alsaan tonton Victor nekk fiiñ mi ñoom ñëpp instant yii xam nga dañ may dañ may bàyyil ay yenn kii yu quoi opportunité yi. ok dañ la koy yombalal. ci gàttal dañ koy yombalal waaw. maa ngi nuyu Waly Waly Sène maa ngi koy nuyu boom boom nday Lat Diop boom Lonase maa ngi koy nuyu baax a baax kooku sama waay la kooku maa ngi moom daanaka ñoo defandoo lépp ñoo jàngandoo école ñoo bàyyandoo ñoo fowandoo yàgg nañoo ànd di nangu mburu élève yi même ba ci gërëm yi xaw ma fàttaliku na ko déet bokkoon nañu école man ak moom. xëy na nag moo xawoon raw tuuti ci classe ndax man moom lànk bañ a jàng laa laa jëloon xayitoog moom waaye ñoo bokkoon école ay ñi ñëpp ay xale lañ. Euh, su ma jógee ci ma gis nga ñëw daan ko nga def. bi yàlla dogal ñu jox la ci ndam mais bi ma joxee ndam nga ànd ci ak euh, moom man sax waxuma ko ndax ma gis naa mais daf ma woo ne ma loolu bokk na ci ku gën a naqari moom parisien. ndax nee na dafa gis ay journalistes yoo xamante ni nii dañoo def mais dañ leen gis ñu tax soxla te du na bokk na ci nag gannaaw fii la wasaay lay wasaayoo nee na gis na Baye Djily euh, ak kii di Pël mënoon nañ doxalee neneen nu gën a rafet ni ñu doxalee ci ci combat bi parce que ëllëg si biir mën nañ koo soxla wala mën nañ koo bëgg dañ jël te ni ñu doxalee ci combat bi neexu ko benn yoon Ousin parisien kan moo koy tëggalaat làmb. dégg naa am na combat parisi xanaa kon promoteur bu ko xamul rek moo koy tëgg làmb parisien li am dafa fees sax saal bi <laughs> parisien parisien xool dafa am ñu ko waroon a jàppale ci làmb ji ba nga ko jàppale jox ko xaaj ni ko jëndal billet. téye micro bi. gars yi jox xaaj ni ko jënd billet mu def Assane Ndiaye lu ñaaw lekk xaaj bi parisien moom kan moom moo koy tëggal xanaa ku ko xamul moo koy tëggal làmb. parce que li mu am amul. ko téye li mu am amul lu fees benn kaar. nit buy wax day waxoo ci rek di nga jiili faal moom yoo noonu ji làmb boolewu maag moom xam nga ci dara. Mm. jiili man maa ko yar ay làmb boolewu maag jiili bu waxee jiili dara moom mi ngi tooñ jiili jiili sama rakk la tey sama rakk la sama rakk la gën a ëllëg. ki lay wax noonu pël bu waxee pël dara mu ngi tooñ pël pël yoonam newul ci sama sama diggante pël kooku tamit làmb du làmb làmb boolewuñu. nee naa tey ma ñëwee. waaw man bëgguma woon man bàyyi woon naa affaire làmb man nee naa doon sama man naa doon lekk sama wërsëg feneen fu dul làmb tey ma demee ba desuwaat di bëre pël tax may bëre parce que man tey jii nii man dama réeroon pël jële ma Afghanistan sa waaye man ma defaat ma comme volcan féete féete xam nu ko olof jaay waxee. day xañ wërsëg de moom bu waxee loolu mi ngi tooñ jii li sama rakk la ñoo bokk koñ maa moom du tey démb la woon. boobu xamu noonu sax ni maag moom daañu mas a daje ci affaire làmb mu ne reporter moom mi bëri déedéet boobu kenn xamu ci woon ni destin bi dina am. waaw fi ñu jaar waaw dafa yàgg. waaw kon boog loolu yoonam néew ci. pël bu rafet bi mu noonu tamit pël sama xarit la sama doom lay la moom yoonam néew ti diggante pël nee moom pël moomu li ma séqam moom dafa bëri kooku sama jigéen la sama lépp la tey bu gars ba xam ma yàlla ak ma tam ñu xam ma gis nga parisien amul ma ko waroon naa ko fekk fii. mu ko fekkoon fi ci lay dàqee yow seetaan nga keroog combat bi ni demee koo xam si nangul taxaw nangul def dara nangul taxaw dóor mi dóor loolu sax du dóor lu tax ñoo dóor dóor am na nga dóor nit ki génn lii ne dafa nooy. Mhm. li mun nañu dóoree xale bu ndaw sax bu la dóoree sax lii day dagg. mais keroog tuus ma nga tuus. ah tuus ma tuus noonu tey ji loolu maa ngi koy loolu noonu tey ma demee ba génne tuus ma gannaaw yàlla ak sama grand musaa Dioum. Moussa Dioum laa timbal ma. ah Timba Massi moo tax ba mu jàgg mun ma Kalso defal euh, Rita Mbale bi tey man maa ko génnee ci open press Rita Mbale bu Waly Seck dégg naa Waly am na Omar Waly xam nga fa Omar Waly dëgg Fadia nee na ma Waly sax daf lay seetaan. Mhm. wax na ma ko envoyé na message boo xam si mu expliqué ma ko ba boobu léegi mu jàpp naa naan pour dana mu yóbbu ci Waly nanga man ko waa bis bu jotee rek maa ko génne ci open press génne ko ci. arène ci arène bi. mbër yëpp. waaw du koy bàggu keroog gis nga ba mu ko ñëwee génne ko dama ko mën nag. tey tey tey tey tey tey tey tey tey tey tey tey tey tey tey. ah waay waay waay non waroon naa sol ci ay yaay. taa taa tey bi. loolu nag fu ñu ko nga fecc. ñëpp ko ci yam. ah waaw. fu mu ko teg ak kii keroog moom woon ci bonne presse ba keroog gis nga bonne presse ba parcelle ni mu demee woon. waaw toj nañ fa de nañ fa. ba pare làmb ji sax jotuma ko faa fecc parce que amuñu temps bi. Mhm. mais sama combat bi nga xam ne moom laa war a bëree ak booy bi nii booy bi sax bëgguma bëreeg moom kii nga ma wax nii. kii moo ni sax xam nga kii du mbër quoi booy bii nga wax nii nga xam ne xam nga dafa sogee xaw ma ñaari góos la yor. <laughs> non non xam nga wax naa la ko sànq man la làmb benn combat ma ci dese dama cee bëgg a def crime booy bi buy dof dof ci moom laay defee crime bàyyi làmb moom laay defee crime bàyyi làmb tey jii nii xam nga ma bëgg nga indil ma ko fi mu toog ñu toog ma ak loolu day am. Ah. Euh, Elton bébé Elton. Bébé Elton dina ñëw fii yéen ñaa ngeen jàkkaarloo. kooku ñaari góos la yow dama la dugg. ah Bébé Elton kooku bëgg nga xamante ni buy dox day diree ko day mel ni dañ koy yéen géej wa. Bébé Elton day Bébé Elton lu mu fi def. Bébé ñetti combat la bëri. Ah, waaw bëgg na euh, ñetti combat yëpp niil la ñetti. dafa niil moom day arrière ba génn te kooku tànk yi baaxul. wóor na alxuraani karim bu ñu bëree mag moom non bu ñu bëree dana am lu ko metti ay yëpp waaye dama koy dama bu buñ bëree maam moom dana kooku ñaari góose la yor nee la dafa pant la def moom mënul taxaw keroog bi ñu doon def suñu signature bi fële kër ci Fallou Ndiaye booy bu taxaw nii lay def day jéng day mel na euh, R4 ba waaye booy bi ma ko gisee mu jéng R4 kër këree rek la ma doon wan xam nga R4 R4 bu këree waaw yu yàgg bu këree bu këree am nuy def sama xel yëpp ci R4 la nekk kooku mu ko jàpp ko laay kooku moo ko jàpp moo xam ne yàlla julli la euh, bu ma bu ma bu ma jógee ci Calcio damay ñëw parce que. mais Ousseyn. waaw Ousseyn. waaw xam nga seen fii ci leen lépp duñ leeral wasaare. waaw te yow waa Gambie dañ leen di seetaan Gambie Gambie bari ngeen fa ay. moom Bas xam na ci mhm. xam na ci dara parce que dem ngeen fa. Mhm. yow def naa dema woon. de dema guma. waaw wasaare ñëpp leen seetaan Gambie am na sama benn grand boo xam si ñu koy wax euh, Baye Sall taximan la. ak ay gars yu fa nekk ñëpp dañ leen seen ñoom émission bi ngeen def leen seen maa ngi sant waa Gambie nag di gërëm bu baax a baax bàyyi ma kenn. dëgg la Gambie gi yëpp yëpp yëpp bàyyi Gambie gi yëpp nag bàyyi ma kenn ñëpp bàyyi ma kenn. Euh, bu ma ñëwee bu ñëw ci yow parce que fan yi gis nañ ni làmb di doxee euh, jeune lutteur yëpp koo ci xool am na loo xamante nekk na ci xolam saa bu ñu toogee dinañ ko bëgg a génnee wax ko ni nga gisee làmb di doxee association yu bari promoteurs yu génn wax fii. mbay génn wax fii ménager yi génn wax fii naka nga gisee loolu. waa comme sama gis-gis quoi. Mm-hmm. tey jii nii boo gisee làmb ji doxee nii parce que nit tamit buñ jëlee loo xamante ni maanaam ñu jiital la ku si mel ni Gris Bordeaux gars dañ koo jël wóolu woon ko xam nga am ci moom maanaam un formidable simplificateur de la complicité humaine muy la confiance la gars amoon ci moom xam te nit. ñëpp xam nañu Gris nañtele mais dafa dem ba si yàgg ànd ak ay ngaaka moo tax muy def yëfu ngaaka li muy def xam nañu du yoon bu demee ba xam ñu mobile ay Onde Le Fou gaa yëpp ba si man mii ñun ñëpp si lañ bokk parce que fii nga waxoo nga ñàkkoo wax mbër yëpp am nañu leen metti te xam nga dëgg moom dëgg rek lay musa nekk te ñum Onde noonu li ñu wax ak ñum mobile ak Kona wër na maam Serap Fall doo gis kenn ku toog ku ko démentir parce que dëgg kenn mënu si dindi dara. kenn du ko waaw te instant nag boo gisee nag yenn gars yi ku si mel ni jamaïcain ay promoteur ku si nekk génn di wax sa côté ñeneen ak ñeneen fii laa ko waxee barki Serigne Touba Mbacke ñoom bu ñu seetaanee li dañ xam ne li ñuy def teguñu ko si yoon te nit nag boo nekkee gor quoi dëgg la ñoom Gris Bordeaux ay lañ parce que dañoo jëflanteeg Matar ba loo xamante ni mënuñu koo wax dëgg. maanaam xam nga dañ. fii laa la koy waaw da leen ji teraanga boo xamante ni même bu defee lu dul yoon duñ ko ko wax. te loolu noonu du yoon waaw parce que ministre bi fii la toog accusé mbëri mu ne ñun ñoo taal dëkk bi mais griboto dafa dem ne yow nit na la lay tooñee ba pare di la woo pour nga ñëw bureau mu jégalu la ministre bi moo waroon génn publiquement ñëpp di seetaan mu ne li ma wax erreur la maa ngi jégalu dëgg neexul mm-hmm. mais xam nga tey ji Gris bu demee ba nekk fii xam nga gars yi créé groupe ñu jëlaat yeneen mbëri ndaw xam di leen ger gars di déggu vocal yi xam nga dëkk bi moo tollatul foofu parce fii nii kenn nelawatul kenn nekkatul dof. dëgg xam nañ nu muy doxee. ñoom ñoo ci war a jàpp ko waa xam ni gars yi dañoo am lu leen metti waaw noonu la demee. Hmm. kàddu yi rafet na Kalso naka nga gisee làmb ni muy doxee. waaw moom fi foofu laay jël. micro bi fi mu jeexal foofu laay jël gis nga mbër yi. Hmm. association yi li mu yàgg-yàgg yi association yi ñu def nii dafa bëri. Hmm. dafa bëri ci làmb. ñu naan fii VIP xoolal caméra bi. ñu naan fii association VIP fii association xaw des jeunes lutteurs. association Benjamin. association Poussin association minime <laughs> association. association yi dañoo bëri quoi ci làmb. lamb ñëpp benn lañ mbër mu ndaw ak mbër mu mag ak yëpp benn parce que kii euh, licence bi muy dagg man moo koy dagg moom la Balla Gaye di dagg. moom la micro bi. licence yëpp ñun ñoo ko tolloo bi kii di dagg man lay dagg Modou Lo moom lay dagg. mais minime yi bëri nañ fi poussin yi association yi bëri nañ fi bëri koo xam si kenn xamul lépp nan la te ñun ñëpp war nañoo toog wóor na alxuraan karim def benn benn benn kese kese def benn kese. mu jaadu waaw mu jaadu mais xam nga tey jii boo déggee promoteur di xas fii mbër di xas fee xam nga ñoom jamay keng mobile yooyu noonu maa ngi dégg fan yëpp boo dee xool ci réseaux sociaux ñu ngi coow di coow fee di di coow fee pourtant jamay keng moom mu ngay wax noonu man jamay keng defaluma dara. Mhm. jamay keng defaluma dara sama rakk la. yaa ngi dégg musuma sax tëggal làmb mais jamaïcain fi mu jugee dafa sori. Mhm. jamaïcain lan la woon supporter la woon jugee ci supporter nekk fans nekk nekk na fi sax jamaïcain nekk na fi sax coach. kon koo xam na làmb jugee ci coach nekk promoteur ba tey ñëpp xam ko. mais jamaïcain war naa tool foo xam si moom ak euh, mobile pour ñu sax ne fii kii di wax fii kii di wax lee man ànduma ak mobile ànduma ak jamaïcain mais jamaïcain moom mobile seexuma moom dara mais jamaïcain man xam naa ko nitu dëgg la Jame Kem man mi di wax ak yow ni sax bu ma defee toor dafa may wone ma Kalso li nga def teewu ko ci yoon teewu ko dëgg mais xuloo bi ak waxante bi lu ñaawi ñox yooyu moom war nañ ko mën a bàyyi mais wax dëgg yàlla Jame Kem. ñoom mooy Kalso. Jame Kem nit ku baax Kalso wuyu ma. bul nekk fii toog naan da ngay tagg Jame Kem déglu ma la. dama la ne. waaw Jame li muy def tegu ko ci yoon. defal ndànk rek defal ndànk non defal ndànk ma wax la bu non non amuñu ba mu waxee mbëri rek la amal ñëpp problème non non affaire bi question de mobile mobile kese du mbër moom mbëri lay wax mais xamal la mooy problème bi dëgg moo neexul ak Kalso gis na nit boo ko bu dee sa gaan la nga koy wax dëgg hmm. xam la nga koy wax da nga koy wax dëgg ne ko carrément buy far na hmm. far ci côté mbëri ndaw yi parce que hmm. loolu mooy yoon ay mataar ba yooyu muy far noonu barki maam Seera Fall Macky day wàcc tôt ou day wàcc ñoom dañuy dem ñeneen ñooy ñëwaat te moom carrière des na mais affaire bi nekkul ñëw di di waneew di féetew si politique ba ñëpp xam ni yow mi carrément fii nga far. kon ñoom kon lan moo tax booy mbër boobu nekk Pikine nu mu tuddati. on le am na beneen booy mbër. alliance Balde. alliance kooku jeune la war a doon. mu mu tourné maa ngi ko dégg mu leen di mu leen di ŋàññi. parce que xamoo li nekk ci biir yëpp xamoo li ah. nekk ci biir yëpp moo tax. Ah. ok xamoo li nekk si biir yëpp. Jamaïcain boo ko bëggee nga waxut dëgg. gis ngeen ñoom Jamaïcain moom dinaa Jamaïcain moom wax dëgg yàlla man du ma la nëbbu Jamaïcain man wax dëgg laa ko xamee. waaw d' accord man Jamaïcain jox ma ma lekk naan man dëgg laa ko xamee man xaw ma lu mu jolente ak kee. problème bi problème bi problème bi problème bi saa boo jeexee rek mu gën a ñëw. Hmm. Euh, ñoo ngi may signalé temps bi jeex na. Hmm. lan ngay tàggatoo. waaw li may tàggatoo. bàyyi sama booy tàggatoo ba pare parce que man damaa yor fekk kay boo xam ne cinquante pages la tey baa ngi il faut ma génn parce que doomu aadama cinquante pages. waaw yàgg. dama koy faram fàcceel rek comme jàng naa français dama koy faram fàccee. Ah. waaw. <laughs> Ah, gërëm <laughs> man moom xam nga. Ah. maa ngi yëpp. 1 ba 26 waa Cité Fadia. di sant waa Cambérène. Nations Unies golf bàyyi ma fenn xam di sant waa Seras may jàppale ñëpp. ñum caat saa ñaambur bàyyi kenn. di sant waa Kaolack waa Warjaxal waa Saata Waale Ndofaan Likeem xam nga di sant waa Ngeexoox bu baax a baax tonton Ousseynou ñoom ñëpp maa leen di sant di sant waa Seyaan ak waa Fass Barigo ak Jiba Yela waa Ngeexoox ñëpp bàyyi ma kenn waaw di santaat waa Lonase bu baax di sant Laat Diop xam nga si jàppale bi ñuy jàppale boobu ba léegi moo ngi siy jàpp waaw ñoo ngi koy sant bu baax bu baax di ko gërëm woon na Serigne waaw di xam di jaale xam ñu moo ndaw quoi. Mm-hmm. waaw di jaale moo ndaw xam nga tonton Jamil mi gaañu xam nga ak yaayam di leen ko jaale ñoom ñëpp waa kër gi ak Serigne Bamba ak sunu copain boo xamante ni tey jii dafa nekkoon koo xamante ni su ma amee làmb lépp lépp daanaka dama ne si loxoom la doon jaar. Hmm. parce que dama doon bëree ba pare sax moom moo ngi ci dëgg maa ngi si fen barki maam Seera Fall béy di doon bëree ba pare mu yëkkati trois cent mille yoo xamante ni si biir làmb ji moom ma koy dencal damay bëree ba pare mu yëkkati xaalis jox ma barki alxuraanu karim. ñu koy ñaanal di ko jaale seen waa kër di ko jaale waa Intekat ñëpp waaw parce que loolu moom xam nga rek duñ bëgg sax di ci wax. yenn wax suñu interview bu ñu mujjee def ndeysaan moo doon toog. doon doon moo toogoon noonu sama wet affaire yooyu noonu waaw. xam nga di ko jaale waa parcelle Grand Médine ñoom ñëpp ñu maas bàyyi mu fenn xam rek duñ si bëgg di wax di ci wax waa mooy loolu. Euh, foofu nga daanelee fa laa jógee mu ndaw ñoo ngi koy jaale bu baax a baax ndax man ci kër gi laa bokk tonton Jamil ñoo ngi koy jaale bu baax a baax ndax ku baax la woon amu woon benn problème moom ndaw tamit ñoo koy jaay la yaayam di ko wax ne na gën a góorgóorlu àdduna noonu la fii moom kenn dëkku fi ñëppay dem dañuy ñaan yàlla bu ñuy dem mu fekk ñu ci anam bu rafet te gannaaw ñoo fi des ñaanal ko dong moo fi sës Kalso kàddu yu mujj. kàddu gu mujj yi doom yaay maa maa ngi direct bi de. waaw waaw jël jël jël sama euh, sama sama sama sama kàddu gu mujj nag moom premier gërëm bi may gërëm. sama premier gërëm bi may gërëm kàggu may nga ko mu jël lépp gis nga bi de. Ah, faut am ñoo xam si tamit bu baax a baax. par exemple kàggu nee gaaw. jàppale leen di mën a sant bu baax a baax. sama première sama première sant maa koy jëkkee ci sama samay mbokk waa Afghanistan suñu waa dëkk. waa Afghanistan bu ma fa jugee teg ci sama dëkk Sénégal teg ci sama dëkk waa waa bu ma jugee foofu nag maa ngi sant sama benn grand bu baax ñu ngi wax Mass Mbengue Mass Mbengue futur futur futur futur Mass Mbengue futur maire de doomu baayu Alsane Thiam Thiam portable taalibe Cheikh Diallo coach vidéo coach Kaal Diop ak seen waa kër Moussa Ndiaye ak seen waa kër Weuz Dem ak seen waa kër sama booy. mbete communiqué. sama sama sama sama booy bu baax bi Laay Sabal ak seen waa kër Zal Diatta. ak seen waa kër kon kuy tàggee kon <laughs> kuy tàggee. Malick Diatta Alioune Diop ak seen waa kër famille Koné Abu Diagne Youssou Diagne famille Diatta Asom Diatta magu ñoom Malick Diatta ku baax Daouda Ndiaye sama xarit sama rakk Ousmane Ndiaye. maam góor Diagne Turquie. waaw damay tàggate Baye Cheikh Espagne Zozo Maroc sama yaay Pël Sokh Pikine Khady Diop. ak ay rakam Baye Sall Gambi taxi driver ak waa Kaos Tamsir ak Fifty ak Dadi Won ak ak ak Njool Taabaan waa Zimb ne foofu noonu Moussa Tidiane Mo Pa Ibu Aadu Boy Gambia Moussa Tilala Moussa Tilala naa la booleeg moom ku baax ci nit mi ngi dëkk. soo nga dig ma doo moom Moussa Tilala mi ngi fii sëñ Abdourahmane Fall Tilala mooy sëriñam. léegi jamono ji ñu toll moom mi ngi euh, moo euh, sëñ Fallou Fatila laa ñooy ànd mi ngi dëkk si dafa yaa ku baax di di gërëm tamit sama jabar bu baax a baax maam Diarra Hélène Ndiaye. Mhm. ca Angleterre maa ngi koy gërëm ca Écosse. alaaji sama benn xarit bu war a def anniversaire le cinq bi di ñëw maa ngi koy ñaanal yan na dund dund dund dund ba def yàlla merci de me rappeler ko xanaa suñu borom da maa fàtte. sant naa leen gërëm naa leen yow mi nga xam yaa nekk fii lépp yow. sama rakk ji moom nee naa ko am na lu moo ko dencal quoi moom xam na. Mhm. dama la su ñaari cameraman yi nag moom gërëm naa leen bu baax rawatina sa waay yi nga xam ne. kàggu nee na moom ceebu kecax da ko bëgg. bu am lan bu am bu am suul xaw ak yéet ak lan koŋ. <laughs> waaw kooku moom yow ko moom kooku nag may bis boo xam si pare nga ñuy dem bi ma wutal la koŋ boo xam si Guinée lay jugee wala bi jugee Mauritanie. gis ngeen ñëpp gërëm naa leen bàyyiwuma kenn nag di gërëm di sama rakk Jili Fall. Jili du ma jugee fii ba dem te du ko gërëm. Mhm. ak ak ak Basirou ak Paate grand Paate mi fi nekkoon ay temps grand bu baax ba. Basirou bi Basirou maa ngi koy gërëm Paate maa ngi koy gërëm ak Jili Fall. Mhm. bàyyiwuma kenn parcelle bàyyiwuma kenn waa parcelle ñëpp ñëpp ñëpp. un ba vingt six bàyyiwuma kenn waa Gambie bàyyiwuma kenn ñëpp sant naa leen gërëm naa moo jox la bon bi Lamine Tamba. ah non kooku moom dafa ne moom bu ma koy gërëm looloo tax. Ah. Lamine Tamba ak a baax. barke alxuraan kam ni ma jàppale sama combat mais dafa ne moom Kalso boo nekkatee ci làmb del noppi. loolu tax <laughs> mais ku baax. gis ngeen nii lay nag bu ñu jugee fii. ngir yàlla yonent bi ñëwal ma nag. mën ñëw bu fi jooy de. gis ngeen ni lay demee ci jàmmaarloo boo tax na tey lii la leen fi andi woon andi leen ki nga xamante ni mooy Guiro Séras moom mi woon dajeeg Nokia mu ki nga xamante ni mooy Calcio mu war a dajeeg ki nga xamante ni mooy Bébé Elton ñi leen ko defee ci jàmmaarloo di leen jox di daje ba beneen yoon di leen wax ne le 10 mooy sama anniversaire zoo yu mag yëpp ni mooy 10 la sol le 10 mooy sama anniversaire. waaw le 10 septembre. Ah, kenn du man ci man. septembre bi bii nii <laughs> di leen jox dig daje jàmmaarloo. beneen yoon ak yeneen mbër jërë jëf